Euh, mu leen donc tey jii bu ñu ba yor li nga xam ne nag moom moo di lii di état ku koy songu euh, danga mel ni kuy kuy xaru nan nga jàngatee li nga xam nag moo di euh, attaque bi ak réponse bi nga xam ni moom la Ousmane Sonko jagleel ñi di adversaire am. waaw xam nga xam nga defe naa fi Vito daanelee la rek. Mhm. man dama gëm ne campagne maanaam dem sur le terrain la def sa ay caravane. Mhm. def sa ay meeting. c'est-à-dire heure bi dafa waroon fekk kii buy meeting fële ngay meeting fële doo tal mais malheureusement bu fekkee ne tey dañu nekk ci campagne boo xamante ne nii on a l'impression ko benn candidat moom moo am moom mooy caravane moom mooy meeting et d'autres leneen leen li ñu leen di gis ñuy def mooy ay attaques. wala yu yu mel noonu. je mhm. pense loolu euh, dafay wane ne rek xëy na gars yi jàppatuñ ci dara et dañuy nar a def recours ci ci li nga xam ne moom moo di violence. Mhm. parce que comme ni mu ko waxee maanaam xëccoo bu fekkee ni am na suuf mais yow lan moo gën a neex yow ñu may la 21. jour yoo xam ne neneen la tu as le droit de parcourir dëkk bi. Mhm. amul guddi amul bëccëg élection le di 17 la yow demal vers les pour convaincre leen. Mhm. sëñ bi loolu ki ñu ko wax war ngaa tal leneen lu dul attaqué waate. Euh. bu fekkee ne am nga discours. Mhm. jàpp naa ne euh, gis nañu élection yi euh, campagne bi mu dooree ak léegi. Ousmane Sonko li mu jot a def rek ci jour yi franchement ku gis nen ne nena gi gis nga ne. am na loo xamante ne feeñ na mooy askan wi ba tey ñu ngi ci ginnaawam parce que avant ñuy àgg ci campagne bi am na ñu doon wax naan woy affaire bi fi mu tolloon léegi xam naa mbir yi mujj na wàññeeku wala jeunes yi seen yaakaar tas na. Mhm. mais li ñu gis contrairement à ce discours là mooy bi mu génnee mooy du côté de Thiès bi mu demee kaw Kaolack ak feneen ak feneen da ngay gis ne ferveur bi est-ce que sax du wax ne am na lu ci dolleeku. léegi la vraie question mooy Ousmane Sonko fa mu jóge woon ci élection yi ñu jóge parce que ak Diomaye man je fais pas la fi ñu jóge ñoom ci euh, élection présidentielle bi est-ce que dañuy garder cap bi wala dañuy am loo xam ne moom moo ko moom moo ko ëpp uh-huh. rawatina ñoom ñu def choix ne dañuy dem ci bañeeru euh, Pastef léegi nag attaque bi man déjà li nga si njëkk def comme constat mooy xam nga lan moo xewoon ci biir dëkk bi uh-huh. Macky Sall moo daan génn ànd ak ña muy àndal waxuma attaque de morceau bu xonq uh-huh. ku ko yëgati ñu dal sa kaw dóor la ba damm la pancarte bi ku koy bëri na ñu ko dund au Sénégal ñu ngi may dégg. ci biir dëkk bi maanaam Macky Sall fu muy ñëw waxuma la ay euh, ay yuuxu wala ay kii de pancarte boo ko fa yoree boo xam ne la nga ca bind neexu leen ñu dóor la ba damm la. ànd ak ay nerviem dugg ci biir dëkk bi yàggul dara bi mais le cas Bougane yàggul dans le Fouta ñu tëbali ko fa ñeneen ak ñeneen fu mu taseeg yow gars yi dal sa kaw. donc loolu lu fi yàgg am la gis nañ ku ku ku yii di xew nii ay sonkorisé euh, Barthélemy Diaz li mu fi def mais sëñ bi ab kilifa def na ko fi jaroon ñu koy ñu ci ñu ci ñu ciy dellu si taxaw na ci caravane euh, ne garde du corps yi wala boog gros bras yi ku fi wax nangam rek nangam leen ko. Hmm. loolu yàgg na fee am. donc mais li li si bees mooy ki nekk au pouvoir moom moo daan noggatu ñu nekk ci biir opposition parce que day jàpp ne moom moo yore doole ji mais fii li fi bees mooy ñi yor ñi nekk si pouvoir bi. Hmm. waroon xëy na doxe noonu waroon na ne ñun ñooy pouvoir bi ñun ñooy dem di dal ci kaw nit yi ñoom ñoo ne ñun dañoo opté pour benn débat d'idées mhm. ñun dañoo opté pour que nit yëpp dem et terewuñu moo tax may wax à chaque fois que lii dafa waroon nekk campagne bi gën a neex ci campagne yi mës a am au Sénégal. Mhm. ci histoire. Mhm. parce que là ñu ngi ci campagne boo xamante ne nii mais. ministère de l' intérieur on a ministre boo xam ne nii ministre bu neutre la ci élection yi. Euh, un président de la république bu soucieux ci conditions yi nga xam ne nii ci lañuy ñuy organiser élection législative yi c' à dire tout ce qui condition pour que euh, campagne mën a am ci ni mu gën a rafetee am na. mooy tey jii kenn du empêcher kenn ne ko doo fi euh, doo fi meetingee kenn du empêcher kenn ne ko doo jaar fii kenn y' a aucun problème mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si opposition bi. c'est-à-dire ils vont tout fair pour dem wëri ji problème maanaam problème bu leen di daw sax ñoom ñooy dàq ji problème mhm. depuis début processus bi moom ñoom wane nañ ne lii sawaruñ si mhm. mooy nañ leen dem élection législative nga dem vers Euh, le conseil constitutionnel na leen euh, nañu pousse li nga xam ne moom moo di datu élection bi parce que euh, président de la république bi muy dissoudre assemblée nationale tegu ko si yoon wala ba muy saisir conseil constitutionnel ñun daf ñu waroon informer. Mhm. ñu ne déetewaay nga indi tête de si boo xamante ne mais leur plan bokkoon na si. Mhm. tey jii lu mel ni sàmm sa kàddu ñu ne leen Barthélemy Diaz mënut te nekk candidat parce que euh, moom dafa dafa am condamnation bu ñu teg ci kawam bu ko defee mbir yi jaxasoo. pour que ñu mhm. génn ne voilà gis ngeen dañuy tere mu nekk candidat loolu yëpp amul. Mm-hmm. aujourd'hui nga dem bañ ne la c'est comme si sëñ bi nga war a euh, dem ci euh, combat boo xam ne ñeme woo ki nga war a dajal. Mm-hmm. ngay def le tout pour yàq combat bi mais saa boo jéemee yàq waa ji ne la c'est pas grave mm-hmm. yooyu yëpp grave yow na nga ñëw na nga ñëw bëri si combat bi rek. mais fii ñu toll ba tey jii di man dama jëm gëm ne ñoom dañu nekk à chaque fois euh, une certaine opposition en tout cas. ci ay stratégie de de de sabotage ci contexte bi nga xam ne ni ci lañ nekk parce que bon lu ñu gis ne lii suñ ko defee rek war na mën a yàq. Uh-huh. élection yi dañ ciy nekk donc attaque bi nga xam ne am na démb loolu lañ ci njëkk jàngat mooy ñi war a attaqué waate ñi waroon a attaqué waate uh-huh. maanaam ñi nga xam ne ñoo yor doole bi te ñoom lañ daan gis ñuy attaqué mais ñoom lañ gis tey ñoom ñuy dal ci seen kaw uh-huh. et je pense que euh, de débat bi nga xam ne ni ubbeeku na boo seetloo le 28 mars uh parce que élection mi ngi amoon le 24 mars le 28 euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar fay moom moo joxe ndigal GIGN ne ko dem leen ngeen assurer euh, désormais la sécurité d'Ousmane Sonko. te entre temps boo seetloo bi Ousmane Sonko di wax naan euh, ñun du ñu utiliser li nga xam ne moom moo di moyen état. Mhm. am na sax xëccoo bu am entre moom. ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a gérer sa sécurité parce que ñooñu dañoo lànk ne ko non non yow c'est-à-dire mën nañ la bàyyi euh, nga dem def say tournée c'est-à-dire boo nee oto. mu oto yi nga xam ne oto président oto primature la du ko utiliser ñu nangul la ko soo nee bay dem jël samay sécurité yi nga xam ne ñoom laa daan liggéey ñu nangul la ko mais dañ koo bañal le fait que mu mën a déplacer wu c'est-à-dire en tant que premier ministre ak lu mën a xew mooy premier ministre coow loolu je pense que mooy bu noon dem grand théâtre mu ngoog sorteem boobu parce que grand théâtre bi muy génn di dem am na xëccoo bu am parce mm. xamante ne ni moom moo di protocole bi mm. xëccoo jot na Euh, ça peut se comprendre c'est-à-dire Ousmane Sonko mais au-delà de mu nekk premier ministre. Mhm. sëñ bi xam nga euh, am na fu sa dayoo di toll ma too sa bopp. Mhm. gis nga dama lay jox benn exemple bi élec bi élection bi jeexee est-ce que Bassirou Diomaye Faye moom mooy demande à ce ne GIGN ñëw leen encercler sama kër est-ce que moo mhm. joxe ndigal bi. duñ la sax déglu du moment où euh, li nga xam ne moom moo di tendance yi wane ne diw moom moo gagné élection yi. ci saa si la ñuy dajaloo ñoom si seen biir ñëw encercler këru Bassirou Diomaye fay wala jël ko déplacé ko yóbbu ko fu mel ni hôtel Azalaï mhm. fekk ko fa daal di encercler hôtel bi sur le plan sécuritaire est-ce que moom président Bassirou Diomaye fay mooy demandé ne kaa leen sécuriser ma non non. Mhm. c'est-à-dire ça protocole bi ça marche comme ça. Mhm. Ousmane Sonko nag xëccoo boobu jot naa am. Euh, par la suite ku demoon sax UCAD euh, 2 bi euh, bi fa Ousmane Sonko di def conférence bi ak Jean-Luc di nga seetlu ne. mais doo gis ku sol tenue mais am na ñoo xam ne soo leen xoolee da ngay xam ne ñii. Mhm. bokkuñu ci sécurité bu bu bu Ousmane Sonko c'est-à-dire ñam daan àndal mu ñoom Momo ak ñoom limousine ak ñoom petit. ak mhm. yu yu mel noonu da xam ne ñii. dañoo raxñee mais boo seetloo dafa am yeneen xeetu tenue yoo xam ne dafay wute ak tenue yi nga xamante ne moom moo di tenue GIGN wala yu demee noonu mais en tout cas am na xëccoo boo xam ne na ci ci cadre boobu et je pense que loolu Ousmane Sonko mënu am na euh, moyen wu état mais am loo xam ne nag c'est la règle mënoo ko bañ a respecter et puis euh, yow dafa am loo xam ne yaa ko moom ak loo xam ne moomatoo ko du moment où tu es le premier ministre de la République du Sénégal am na cër boo xamante ne nekkatul yow yaa siy décider je pense que loolu am na euh, gis nañ ne démb itam boo seetloo euh, mbir mi ba mu amee itam am na sécurité boo xamante ne nii ma nga fa woon et que euh, nañu mbir mi ci niñ ko war a mën a gérer ma jàpp ne loolu yëpp lu war a mën a ñàkk la mooy yow xam nga nga ñëw nga ne da ngay attaqué waate ñu dàq ji la nga ba fa sa sa sa sa oto daw yow looy attaqué waate ba nga xamee ne ci daw ngay mujjee. <laughs> booy non mais xam nga nañu waxante toll nii. Mm-hmm. dama gis ne gars yi dafa am ñoo xam dañoo nekk ci ay tentative de mm-hmm. xaru xaru daa xaru façon de xam mooy fekk koo xam ne moo la ko doole daa bëri façon de. <laughs> na façon bokk na sax ay policiers téye nga ne force damay dem <laughs> yooyu ay façon xaru la. Mm. man dama jàpp ne réew mi dafa am ñoo xam dañoo xaru ba sonn deewuñu. Mm. non dañuy non <laughs> c'est extraordinaire mais yow nga fekk cortège boo xam ne waxuma la dara mais mbooloo mi rek yow nga nekk quelques personne nga ne da nga leen di attaquer. tey jii mais ñoo ñu mënoon nañ sukkandiku ci légitime défense wala ñaanoon ñu ko bu ñu fa jàppoon kenn ba dal si kawam musiba mën na am. te te oto bi candidat boobu takku wàllu la bokk. bien sûr takku wàllu la ñu gis affiche bi clairement yow daax ji ne ba ba te d'ailleurs cette voiture là. bu ñu ko saisiree xool ci biir oto bi mën nañ am des infos yoo xam ne ni dina euh, dellu ci ñi nga xam ne ñoom ñoom moom euh, yooyu. mais daal gëm naa ne euh, jamono bii li xew lenn la mooy gars yi dañoo gis mbir mi xam ne fi mu jëm nii baaxul parce que man je peux mais ñu nekk ci opposition campagne am mu mel ni ñoom yëguñ ne campagne am na. Mhm. dem maa ngi gis Guy Marius Sagna nee na Ziguinchor moom benn liste moo fa am dafa mel ni gars yi déposé wuñu candidature. mais ba léegi maa ngi xaar ku génn tontu ko nekk ko ñun tam ñu ngi campagne mais ba léegi rien doo gis dara. Mhm. mu mel ni campagne bi sëñ bi benn liste daal moom moo nekk ci biir dëkk bi di wër di dem euh, vers les populations loolu xam la lay nduru mhm. mooy nga jëm ci biir nga xam ne lii yow yaa ko jekku léegi nag ña ko ñoom benn recours la ñuy am mooy jéem xool nu ñu xajamalee mbir yi ak euh, yu yu mel noonu. Mhm. mais gëm naa ne daal ku ci nekk ci ñoom waroon nga mën jamono ji waroon na la fekk mais suñu ne Ousmane Sonko ma nga Kaolack ñu ne Amadou Ba ma nga Amadou Ba sax gis naa ko moom it. mi ngi mi ngi doxantu waaye côté côté waaw côté boobu. Mhm. mais c'est bien ku ci nekk dem de l'autre ngeen def seen ay campagne kuy ne ku nekk def sa caravane. Mhm. et puis 17 euh, novembre sénégalais ñoom ñooy décider a boo xam ne kenn gisu la. ba pare bëgg nekk ci nga tudd turu Guy Marius Sagna moom aussi bi attaque bi amee dafa def benn réaction ci li nga xam nag moo di ci page euh, Facebook